Euh, di siyaare waa rajo bi ñëpp ak waa site bi euh, sëñ Xaarim Seck Sadaga la mhm. euh, bokk ci APR 2009 ba léegi di liggéey ak président yu bëree bëri daal maa ngi ciy liggéey pour waaw euh, ginnaaw présentation bi seriñ Serigne Khadim Sadaga euh, ñu bëggoon a xam jafe-jafe yi nga xam ne béykat yi ñu ngi koy am. tey lan moo nekk seen xalaat ci mbir mu leen. waaye euh, wàllu mbay bi moom boo ma si laajee dama si sawar ndax li tax ma si sawar mooy. damaa yor benn association boo xam ne mu ngi tudd Andar. association boobu deux mille quinze ba léegi ñu ngi moom di si liggéey yàlla def nag ba am na fréquence rajo xam ne war nañu def benn rajo boo xam ne. Euh, rajo boo xam ne rajo euh, boo xam mbay dong moo ko tax a jóg rajo bu jëm ci mbay musta am euh, fréquence boobu wut nañ ko ba am nañ ko yàlla def na am nañ ko ci sant directeur ARTP muy ki fi njëkkoon ne ak ki fi nekk nii kon boo ñu laajee ci mbay dañ ci sawar ndax yàlla defoon na ñu ngi doon amoon nañ raison bu ne amoon nañ ñu ngi fa nekkal ci mbay ci station bi bi liggéey bi métti ba métti nag ñi ne woon ci fréquence bi ñun bu ñu amee fréquence bi gën a baax pour pour euh, ñu gën a jàppale baykat yi ñu war nañ wut fréquence pour jàpp ma woon naa wut fréquence pour jàppale gën a jàppale baykat moo taxoon ma arrêté woon liggéey bi bari ci mbay mi mm-hmm. mais ci affaire euh, syndicat bi ma ne fi mu nii dañuy tàmbaliwaat dañu am fréquence bu ren bi tàmbaliwaat dañuy tàmbaliwaat euh, liggéey bi bu mu gën a baax mbay mi sawar nañ trop ci loolu mooy gis nañ si ay problème yu bari yoo xam ne coow yu bari na. yu mel nan. Euh, comme tey euh, yaa ngi dégg assemblée euh, ñi daan siisu loolu wax na fee ñee wax fee ñee wax fee loolu jëru ko ndax li wax jëru ko mooy. bu fekkee ne mbay mi li ñu war a def def nañ ko coow yaakaar naa du jub. Mhm. ndax li ma gis mooy ñàkk communication donc communication bu gën dong la mais coow li mënoon naa ñàkk. ndax bu fekk opérateur bi lañ jox ne ko jaayal. jëndal jëndal gerte jaay ñu euh, état wax la ko opérateur bi ñu ngi lay jox ñu ngi lay ñu ngi jënd ci yow six cent cinquante mm-hmm. six cent cinquante ñu ngi ko jëndee kilo gerte ci yow di ko jaay askan wi euh, cinq cent état moo koy subventionné subventionné boobu état boo demee boo demee yow tey yow ñu ne yow suñu fàll yow yaa war a jënd yow yaa andi Touba mil bi gerte gerte googu yow suñu fàll yow mi andi gerte mil bi muy demee mooy da boo demee yow da indi ku la fa commission la am commission boobu commission boobu xam ne moo ànd la yi la yi nga la la président moom la la état dese état nag yurul xaalis kaas kaas kon moo mu jënd ko lu seer ci yow mm-hmm. xam nga li loolu nag léegi après la lay jox kon coow mën naa ñàkk mm-hmm. waxee bu baax waaw waaw mais comme par exemple ñu gis ne Euh, coow mënul bañ a ñàkk ndax li tax dañoo gis ne euh, gouvernement bi. tey hmm? li nga xam ne moom lay jëndee wàllum gerte bi ñu gis ne dafa tuuti lool ci ñi nga xam ne moo di béykat yi. boo tax hmm? bari di ci àddu. Hmm? waaw est-ce que. xam nga xam nga euh, li ñu jëndee gerte gi. de cent dix yi. waaw deux cent dix man. yow yow nga ah, jàppoon ne waratu gën a mën a yokku daal. ah kay man dama gëm ne war naa mën a yokk ndax. Euh, bu fekkee ne am na ñu taxaw trois cent nangam am ñu taxaw deux cent nangam am na yoo xam ne kon ñoom état war sa jënde deux cent dix ndax doo yor sa gerte gis deux cent deux cent cinquante wala deux cent quatre-vingt di jaay deux cent dix am nga bu na foo xam dañuy waxtaan ak baykat yi te dañuy waxtaan ak waa bureau yi. mais nan def ba war a mën a waxtaan ak baykat yi. a gis te du mënu a ak ñoom encore. ñaaka man maa ngi ci ak samay morom ñi ci nañu toog ñoom ñu waxtaan ak ñun ñu def ci baykat yi leen leen euh, communication bi dox. lu ci nekk bu ñu wax ne mënut a nekk itam mënuñu jëndee ci lañ bëgg itam ñu xam ne lii lii kat waxtaan nañ ko ñoom am déet mais yow bay sa mbay ba pare jekki-jekki ñu ne da ngay jënd lii force dañ la lii la ñuy jënd force xam nga loolu yi waxtaan nañu communication bi dox ñu waxtaan nañu xalaat ñu xalaat ci loolu waxtaan seen ñoom ba ba ñëpp déggoo si xam nga wax loolu mu ëpp solo pour jékki-jékki taxaw ne nangam la ñuy jaay mën nañu wax deux cent dix waaye deux cent dix yooyu bu fekkoon ne nag yi baykat yi ñoom ñoo am na ñoo d' accord pour pour am am na mhm. la la mooy ñenn réunion seen réunion jékki-jékki na taxawal nañu a pré prégation nangam lañ état nee nangam la koy taxawee. Mm-hmm. loolu xam nga baaxul. Mm-hmm. ñi ngi encouragé ministre bi ci moom. yu mel nii ba amatee nay waxtaan ak baykat yi baykat yi naqaru ñoo waxtaanal ndax nit koo xam ne yaa ngi koy dimbal di bañ ko nga fekk seer ci lan bëgg. mais est-ce que yéen ngeen ñi nga xam ne yéen a bokk ci APR taxaw ngeen tey itam pour lancer appel boo xam ne. dina tax ñu yokk. non bu fekkoon dañu cee boole. kon dañu cee beddi dañu cee beddi ndax boo déggee Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane euh, ba nekk ngaan na ma ngay wax. Mm-hmm. bu fekkoon ñun boole nañu ci communication bi xam bu ñuy réunion dañuy xam xam bu njëkk rek daa xam réunion bu dañu daa woo mm-hmm. réunion ñuy xam. Mm-hmm. su boobaa dañuy wax ne ah léegi lii boo euh, rajo yi bari dañu daan dem toog ci waxtaan si ne léegi lii moo am. ñu fekk nañ réunion ak lii ak lii lañ fa wax. léegi nag ñuy fekk réunion buñ demee buñ paree dañuy toog seen bureau toog seen bureau waxuñu kenn dara. est-ce que loolu béykat yi mën nañu xam dara loolu mooy problème bi ndax fi ñi ngi wax ñi ngi wax état état deful dara communication lu ñu amul. maanaam daal mbir mi daal ci wàllu communication la. communication la xam nga lan la. Mhm. gerte gi bu fekkee dañoo jënd cinquante franc waxtaanal ña koy ña koy ña koy ñax ba ba d'accord caag ba déggoo caag ñoom ndax béykat yi xam nañ ne état mu ngi leen jàppale. Mhm. jàppale googu nag léegi mënoo taxaw rek nga dem leen jàppale kon lu ma neex laa leen def li nga xam ne moo waxee. Mhm. ndërëm ñoom léegi état mu ngi leen jàppale li problème mooy bu ñu yëngu ci dara nañuy wax nañuy wax ña ca kaw ña ca suuf ña ca kaw wax ak ñoom wax ak ñu ci suuf ñooñu wax ak ñoom orienté leen boobu bañ daal bañ déggoo ci dara. Mm-hmm. buñ déggoo ne ah lii kat moo tax ñu def naa nga bëggoon nañ nangam muy lii ak lii du ñu réunion ci àll bi ñii fu gerte fu ñuy ci suuf ñii réunion dem euh, ndax. deux heures agriculture fu ne am na fa ci àll bi. Mhm. léegi ñun ñi nga xam ne tey ñun ñoo yor opérateur ñun ñoo ñun ñoo yor euh, syndicat béykat ñun ñoo fi taxaw béykat lu sopp. Mhm. ñun ñooñu tey bu am nañoo d'accord nañ suñu liggéey nañu rafet rafetlu suñu liggéey ba ànd ak ñoom ci liggéey day yomb hmm. te su boobaa tey masalan ma ne Kaffrine man maa man maa man maan fa fekk yaa nang fa keneen nang fa keneen nag ñu toog waxtaan ak ñoom yaa ngi dégg bu ñu waxtaanee ñoom ñu dem ci suuf waxtaan ak ñoom ne ah lii kat lii ak lii ak lii lañu wax nangam ak nangam su boobaa li tëp rek ànd ak ci liñ bëgg hmm. am léegi bu ñu amee bu ñu àndee ci lañ bëgg léegi bu boobaa bu ñu taxawalee saxoon ne dañuy jël deux cent dix ñu si bari jaay leen ndax dañu wax ne ñii kat ñun ñoo waaw ñoo ñoo mm-hmm. mais suñu nekk nii loolu mënut am bi ñuy def Touba googu Touba mm-hmm. li muy jënd ci gerte li muy yor ci gerte li muy li muy utilise ci gerte kenn xamul nu toll ci Touba boole ñu ko ci programme mm-hmm. ci Touba lu mel ne gaar ba dañ ko gaar bu ndaw dañ ci leen war a boole ci programme agriculture te nemeeku na ñay sin waa ngi ñëw di jënd si gerte gi foofu waaw waaw mu ne sin waa ñu ngi jënd mais programme agriculture lañ war kon daal boolewuñ leen ci boolewuñ ci Touba boolewuñ ci Touba ndax eh, boo gisee ma lay wax Touba mbay mbay mu am ci àddina Sénégal àddina sax laay wax mbay yëpp lay ñëw Touba dëkk bu mel noonu dañ leen war a jël boole leen ci agriculture ñu xool organiser leen xool ña fa nekk di yëngu ci loolu ñu wax fexe ba am ñu leen jiite jëm ci mbay mi ñu ñu ñu jiite leen mais bañ a jël ñi nga xam ne ñoo génne joxe jiwu yeeg yooyu opérateurs yi ñoo nangam opérateurs yi seen jar seen jiwu lañ lañ am lañ am ak état état bu leen joxee seen agrément amul ci yow état dara man opérateur bu ñëwee ci man man baykat bu ñëwee ci man bi ñëw bëgg maa bëgg maa ne ma dem état lañ bëgg nangam du ko dogu ndax la ma seqoon ak ñoom jaay ma jaay nañ ma seen ay seen yoon nekku ci bat hmm, ginnaaw loolu sëñ Xaadim ñu gis ne euh, ku mel ni Birahim Seck àdduna ci mbir moom yow lan moo nekk sa jàngat ci wax ji nga xam ne moom yëkkati na ko jëmale ko ci mbir moom Birahim Seck daal la ma wax mooy leen la ma ko waxoon ci oh, ba bañ lay waxee ci Ila Touba bu ba Ila Touba di soog a tàmbali. waaw Birahim Seck moo njëkk a taxaw ne Ila Touba waruñu ko woon def waruñu ko def yàqaal. Hmm. la ma ko tontoon laa koy tontaat ci ko ci gayam lam nekk amul kenn ci amul ci àddina benn organisation boo xam ne la ngay dimbalee askan wi ak la ngay jàppale askan wi yaa ngi koy def ci journal amul ku ko xam na ma wax. mais est-ce que itam waxut xalaat tamit te jàpp nañu. xam nga ma dafa wax ne dafa wax ne. dem mm-hmm. wax ne nañ ko def ci journal yi. Mm-hmm. ñi jox gerte gi. ñi opérateur yëpp nañ ko def ci journal musu mm-hmm. koo gis fenn. waaw mais sëñ Xaadim jàpp nga ne maanaam buñ ko defee solution dina ci judd. yow tey tey da nga nangu sa sëriñ ñu def ko ci journal. en tout cas xalaatam la wax sëñ Xaadim pour man wala. mais xalaatam xoolal xam nga dafa am ñoo xam ne gëmuñu dara. Mm. dafa am ñoo xam ne gëmuñu dara ki gëmul dara dañ koy bàyyi lam gëm gëmul dara nañ ko bàyyi ñun ñi gëm nag nañ kilifa li may wax bis bu set mooy duuru muy dong ñoo am ay opérateur ci ci euh, ci mbay mi. Mm-hmm. boo demee ñeseen ay opérateur kilifaang boo demee fële ay opérateur kilifaang la fa yaa ngi dégg. Mm-hmm. bi des mooy Birahim Seck li mu wax gerte gi ne ni ñu ko joxee moom yow tey état mm-hmm. kilifa yu bari jox na leen jox na leen gerte. jiw xanaa li leen duñ seet leen liñ leen dimbale jiw di ko def ci souvent. waaw waaw mais est ce que jotul itam ñi nga xam ne ñoo ngi leen di jox jiw yi te yooyowuñ ko du ñoo xam ne dañ ay béykat lañ ñu bàyyi ko. xam nga dama lay xamal leen. Mhm. mbir moom man di jóg ak moom man di doon yooyowul amut. Mhm. yooyowul amut. kuñ jox gerte ku laaj gerte bañ jox la koy ko ko yeyoo la xam lan mooy affaire bi ki bay ak ki bayu daa am lu ñu jaaxal parce que dañuy gis que ñu naan euh, jiw koy jox ñoo xam ne du ñu bay du ñu am a yeyoo te loolu gisul fenn ku dul ci seen affaire boobu mhm. jiw wi euh, xam nga dafa am benn affaire bu am boo xam ne li ñuy coow assemblée bukk teg jiw yi ñuy wax assemblée mhm. affaire yi opérateur la ñuy wax mhm. opérateur état mooy xool na ko neex mu jox leen nga jaay ma gerte mm-hmm. jaay xool ka ka neex yow tey ñu ne suñ fàllu mm-hmm. euh, am nga gerte nga ne waa mën ñu ne la ba bool nañ la ci quota bi dañ la jox sa agrément xool xaarim ne ko suñu xaarim seg sa daak a bool nañ la ci quota mm-hmm. loolu état mooy xool ña nga xam ne am na yaakaar ci ñoom man nañ lañ def ñu jox ko bu ku jóg joxe jiw yi ñuy wax xam nga ñaar yooyu nit ñi xàmmewuñ ban la ban ak ban la nit ñu bëri ñu ngi ciy wax xamuñu lan la dañu yaakaar ne euh, buñ ne euh, opérateur rek joxe jiw yi dañu yaakaar lépp loolu noonu la demee ci li mu noonu bi ñu def CP la CP mooy état bu xool ñi nga xam ne yaakaar nañ ay béykat lañ am nañ yaakaar ci ñoom ñu ne Sëñ Fall nañ ko jox euh, une wa ilaa ñu jox dix bërigo mhm. wala dix kilos keneen ñu jox ko nangam yow Sëñ Fall bu ñu la joxee tey euh, une tonne mhm. nga ñëw wax ak opérateur nga xool gerte gi yow est gerte gi arrangé la mhm. ah, yow xam nga nag genn gerte gu baax gu baax gi am nga bu la neex nga ne ko jox ma xaalis am na bu ñu la ko joxee xaalis nga dem jënd ko Mhm. dama koy def keneen ak keneen ak keneen ak keneen problème amu fa am de mhm, mhm. problème bi am mooy am na ñoo xam ne dëgg la am na ñoo xam ne dañ leen di jox ñoo xam ne liñ leen di jox kenn du xam lu tax ñu jox leen li ñuy joxee kenn du xam lu xewaral loolu loolu système la boo xam ne lu ñu war a régler la Hmm. mais waruñu ko régler ci coow li ñuy wax ñoo ko war a régler yow nga yaakaar ñu ko war a mën a régler dañ a régler waa ministère ñoo ko mën a régler bërki démb ba am na benn euh, émission bu ma am boo xam ne lañ ma lañ maa wax ne ma dañoo wax ne dafa am benn dëkk boo xam ne dañ faa war na yóbbu gerte opérateur bi ne leen euh, wax leen ma xaa jox leen ma xaalis dama leen di jox xaalis euh, bañ leen di gerte ma ne ko loolu amul fenn mun ma ne amul fenn ndax la tax amul mooy yow opérateur bi yaa war a yóbbu nit mën nga mën nga leen jënd ñoom kon amul kon li mooy li ma wax moom nit ñi dañuy wax ci xamuñu lan la li am mooy yow mi xam suñ pàll seetee nga yor wax nañ ne yow seetee di yor léegi dem nga ci opérateur opérateur bi nee la euh, xaalis gerte lu la gën a nga xool gerte nga ne man xaalis moom a gënal dama doon gerte gi arrangé wu ma ci loolu du problème mu du problème mu euh, opérateur bi du problème mu euh, kiy jënd kan la mooy moom la bi dañuy bañ loolu sax opérateur la mooy lu ndax fii da nga dem ci opérateur ne ko xaalis laa bëgg sama ngeen mun la noonu loolu tam bëgguma ko nangam nangam mais nag li waral loolu ñi lay ñi koy may mooy lépp loo gis lu ne waxtaan ba juboo rek la mm-hmm. lu si nekk amul kenn kuy forcer kenn état li man mu ngi koy def mais problème bi mooy nii euh, ni ngi doxee li dox il faut que ñu xoolaat doxin wi xool xam ne dooru lu ñuy wax ci ay rajo ak ci télé jëf la lu ku ci nekku nag mënoo xam lan la Mhm. ku ci nekkul mënoo koo xam ñun dañ daan fekk ay réunion yu bari dañ daan fekk mais ñun dañ boo gisee yu si ñu wax mooy ndax dañ daan wax euh, affaire mel ni masa bari ba bari dañ rajo yu bari dañ ma daan invité ak télé fi ni nunguma ko tax li tax mooy dama daan fekk ay réunion gis damaa fekk ay réunion kon mënoo caa wax li ma wax bu néew ni ma gisee ni ma li am laa wax muy lan mooy ni ñi nga xam ne tey noonu la état bi ak ak opérateur bi ak it ni ministre bi doxee ak opérateur bi ak nan la ñuy doxee ak baykat yi Hmm. dina ñu war a def am loolu hmm. laa wax. loolu moo moo moo am ci loolu nag il faut que ministre yi xoolaat ñi ko wër. Serigne Khadim ba léegi rek euh, mu mel ni euh, Birame Seck daal comme ay kàddoom jëmul fenn ci ñi nga xam ne moom lañu ko déggee mooy ci ñi nga waxee itam. Birame Seck du baykat. Hmm. yaa ngi dégg Birame la mu nekk loolu mu nekk noonu ah, ah, intérêt moo ko baax ku nekk nag ñun ñu nekk si naaj suñu intérêt moo ñu fi bàyyi yaa ngi dégg ñoom bu ñu amee problème ak état nañ ko fëtiwaat nañ wax ci leneen mais affaire mbay mi seen yoon nekku ci mais producteurs bi ñuy wax seen bopp dong lañ fa nekkal ndax tey bu fekkoon na tey Birane Seck mas nga fekk ci benn tool ñu ne ñu ne la Birane Seck moo wëri tool sànq Moustapha hmm. kon léegi kon Birane Seck boo xee ci mbay tool baykat yi hmm. ñu war a wax ci baykat yi ñoo war a wax ci mbay du moom moo koy wax amul benn naa wax ne lii lañ dimbalee eh, ren mas la ko def sum naal ci moom li muy def li muy def euh, li ma leer naaj luñ ci am luñ ci am na ko kenn réglé wu ko. Mhm. kon nag nañ def journal yooyu di waxi wax di wax ji wax ji lan la mooy ministre bi ci boppam moo war a xool. ministre bi fekk moo war a xool nan la ñuy def organiser waat béykat yi toog ñu toog bu fekk dafa laaj dëkk ñu looy ëpp ñu toog dëpp mhm. lii desin mooy ñi xam li ñooy tekki réunion yi nañu buñ jénne nañ wax li xew réunion yi ñi ci àll bi ñu xam li xew mais yow bu fekk da ngaa dem réunion ñëw toog nit ñi ci àll bi lan la nga xamee euh, ñi dem ci réunion nan la nga xamee ne dara am na loolu moo am ci ñuy dem réunion yi su bari seeni sa génn ñu Tuuba génn ñu Dakar boobu ñu ci ëpp génn ñu Dakar lii mooy problème bi buñ bëggee xam buñ bëggee di xam béykat yi di xam nañuy xool ñi ci àll bi ñu leen di woo di ñuy fekk réunion bu ñuy réunion nañuy wax ne liñ bëgg kat lii la li nga bëgg réunion bii buñ paree fu waaye nekk nagal expliqué ñu fa nekk lii bañ ba mu dugg seen bopp. Mm-hmm. ndax fi ne nii oh, xoolal docteur la. da ciy mm-hmm. sonn trop man damay gis yu bari yoo xam da ciy sonn. comme nan ak it moom bi nangam directeur bi nangam si si ministre bi itam mm-hmm. dañ koy def loo ndax tey yow bu fekkoon ñun dañoo man ak yow dañoo bokk ci rajo boobu ñu nekk ñii organisé lii lañ war a def ak lii mhm. nañ def lii ak lii léegi nag buñ defee loolu yow bu baaxut yow la ñuy wax mais boobaa du yow ñu waa rajo dépp la dafa bu lu si bëpp boobu si ñuy lu mel noonu la ndax léegi tey ñun kam tey ñu toog conseil ministre bi président ne nangam ak nangam la jëkk ñu def mhm. wala président woo ministre bi ko damaa bëgg nga jàpp euh, dafa xoolal jiw ngeen toog ngeen waxtaan nangam na kooku bu ko toogee bu ñu xool tey ñu ne man nañ toog man ñu toog waxtaan ñu toog man la ma wax ak ñoom Euh, fekk si nañ ma ca man la ma bëgg ci ñoom ndax juboo nañ ca léegi tey bu fekkee ne loo am na tey ma am lu ma am leen loo xam ne tey Euh, lañ ma defloo am na am na lu sa lu sa baaxul xam ministre bi la wax fekk du ci ministre bi man mii la mais ministre bi amu ci part de responsable noo xamul lu tax amu ko ci hmm. lam ci am mooy lenn bu amee pour problème amee war na ko war ko lii nga def waxoon nañ ma léegi lii waxuñu ko woon naa yow lii la su ministre war am ginnaaw loolu yan bànqaas la ñu jàpp ne ñooy jàppale président Macky Sall ba ñu xam ne ñu ngi leen di jàppale bu baax baax ci li xam ne moo di liggéey bi bànqaas yi ma gis daal euh, ku mel ne fu mel hmm. ñu ngi liggéey comme ndax euh, ku mel ne kay bay bay di bay hmm. ba liggéeykat ndax li tax muy liggéeykat mooy bay di eh, lim toog foofu kenn mës ko faa toog liggéey moo ko may xam la wax liggéeyam moo ko may mu toog fa ba aar bi doonu ne xaritoo wala dara li man di xew président kuy liggéey la xam Mhm. poste bu man di doon nga yor boo liggéey président bala fa yoo xam ne nag ñu ngi koy ñàkk mais nag man li ma gis bëri di ba liggéeykat la ndax koo xam ne tey boo ñëwoon tey bureau li ñu fees fees dana toog recevoir ñëpp ku nekk mu dalal sa xel mhm. yaa ngi dégg dalal sa xel ne la ah lii ak lii lii lii mhm. kon loolu kooku muy jàppale président xam nga ñu jàppale président mooy ñi xam ne tey seen bureau mënul faa dem boo leen wooy mënu leen a jot kooku bu mën nga leen a woo tey doo leen jot ci ministre yi wala ñeneen te dañ leen di soxla parfois urgent mais tey ñooñu itam nan la ñu a def kon ba jàppale président itam. loolu moo jaaxal ñëpp nan la jàppale président ndax léegi yow koo xam ne boo la wooree doon la jot bu ñu waxee yow kenn mënu laa gis kenn mënu laa jot téléphone léegi yow nan la waxee yow léegi nag boo nee da ngaa bëgg a président président boobu problème la am xam nga président problème la am mhm. bëgg naa liggéey xam na yoon wi mais ñu ko liggéey la am business mooy tëli yi baax gi mu baax forage yi ah courant bi ñi mate foofu man daal loolu moo agilement loolu boo ko dimbu doo ko jël mhm. loolu moo ma jaaxal kon communication moo def mhm. ku nekk la nga nekk président jox la la nga nekk mhm. la nga nekk war nga ko war nga euh, loo ca def war nga ko génne wane na président euh, def na lii ak lii ak lii est-ce que kon jotul président woo leen yéen ñi nga xam ne yéen a seq APR euh, def benn regroupement waxtaane ko xam nga woo ñun waa APR du problème bi foofu xam nga la jamono ji ñu toll tey yow yow mi xam ni tey war nañ war na laa mën a wax nga dem wax wa ilaa war nañ laa war a woon yow mi xam duñ la woo ndax lan la il faut nga am ku la mën a jàppale nangam nangam mhm. te xam nga sama classe yi xam ne ñun ci loo mën loo nekk man nii waxee fi muy waxee yow benn lëgër président laay jàppale sama yónnee ko ci keneen mhm. kon ku mel ne man mu fi bari yow leeral nañ ne amul benn lëgër président ngay jàppale waaw ñoo ñoo bari ci dëkk président xam na ne yow yaa ngi koy jàppale ndaxte bari na ñu bari ñoo xam ne tey dañuy toog ne président la ñuy jàppale te président mosu leen gis mosu leen dégg. donte ko dinañ ko jàppale de mais duñu am motukaay yu tax itam ñu leen di gën a jàppale bu baax a baax. xam nga loolu am nañ ko loolu am na lii nga wax ne am na. Hmm. amuñu matukaay yi. mais teewul lu si nekk. ndax man peut affaire affaire bi si bëree bëri man maa ngi dugal dégg. Hmm. diggante Mahmoud Saleh ak ak Daouda Faye wala ak Marème Faye bi. Hmm. ñooñu xam nañ dara ci

dama koo réglé ak feneen ak feneen yoo xam nii laa ko fekk dama koo réglé hmm. man noonu laay jàppale président mais doolu ma koo xam damay yor sama laa mi di ma ko rek hmm. bu xamee ne maa ngi koy jàppale baax na ma ko gañe lam nekkoon di euh, programme yëpp yu si sama loxo nga ci woon ndax fu mu dama daan woo ñuy déggante maaw ñuy wax hmm. kon tey buñ demee bu neex xamuñu ma ñun kon aw ma ci problème mais la ma wax dama koy def. Hmm. ndax itam nit laa ko xam bu ma nee waaw dama naa waaw su ma nee didi damay naan jël xas naa waaw pare. ginnaaw loolu yan solution nga jàpp ne euh, comme ci wàllu mbéy mi lañ doon wax mën nañ koo def ngir rek gën a sauver ñi nga xam ne moo di euh, béykat yi euh, ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def pour ñu gën a réussir ci wàllum njaay mi ak yan solution nga jàpp ne war naa mën a gën a jëmal mbéy mi ci kanam. solution bi ma gis daal mooy leer. Hmm. ñu wàcc askan bi béykat yi. Hmm. ndax fi may wax ak yow. mbay mi de dafa demul ni mu war a demee am na côté yu bari yoo xam amuñu gerte ndax nji ndaw lañ am ci nji ndaw yi mën ngaa teg fukki saako nangam ci doo am euh, ñeenti bëri ko mm-hmm. kon loolu xam lu oyof kon nag li ñu war a def nañ wàcc ci terrain bi waxtaan ak baykat yi jàppale leen bu ëllëgee buñ soxlaa baykat yi wàccaat ci terrain bi yaa ngi dégg bu ëllëgee bu ñu waxee ne bu ñu amee lu ñuy lu ñuy wax ñu wàcc teen nañ wàcce woon ci teen dimbale leen ñu ne ñëwoon nañ fii lii defal nañ leen lii ñëwaat nañ lii lañ bëgg ba xam dañ koy am nee nit ki mënoo koo bàyyi ci coobareem ah hmm. bis ñëw nga ko lii laa bëgg nga defal ma ko mu la si mu si ànd mënta ne nañu wàcc terrain bi nañu xool ñoo xam ne tey ñoo jege baykat yi ñu wax ak ñoom ñooñu ñooy wàcc terrain wax ak baykat yi yow instant bi ñaan nga jàpp ne gën a jege baykat yi ci jamono yi ñuy wax nii bari na xam nga limi ay limi tur yi tam day mel ne dara la tey ku déggu si tur yaakaar ne dara la xam nga hmm, hmm, hmm. ñoom xam nañ ñoom xam nañ buñ bëggee xam ñu jërë bay jërë jege baykat yi xam nañ yaa ngi dégg ministre agriculture bi la wax bu masaa problème masaa man aar bi laa ma fekk mu jëm tam na mu la wax la ñëpp ñëpp dañu xam ne li mu la wax lu dëgg la lan moo ko waral dama daan génn ci dama daan génn dama daan fekkee réunion mm-hmm. parce boo amee lu ma leen damay woo DPR na ko lii nam def wala ma woo ministre bi na ko lii nan la demee wala ma woo DPR na ko lii nam demee mm-hmm. ren benn nan réunion di ma ko mm-hmm. man est ce kooku man man man maa wax ne lii nii la demee RTS Touba googu daaw indi a ma ay yoon yoon may leeral ah est ce que ren ren benn yoon laa fa dem muy bërki déew kon am na yoo xam ne nañu wàcc man dunu man man maa man rek la affaire bi. mais wàcc xool ñan ñoo mën a kii béykat. ci bi ñu defin mooy ministre euh, de euh, ministère yi nga xam tey ñoo ñooy ñooy jàppale euh, financement yi na nañuy gën a jàppale baykat yi. Hmm. financement yi ndax béykat yi sonn nañ si ñi ñuy wax yéen sonn nañ def buy bëgg a dee nañuy dugg ci àll bi. ñu xool nan la ñuy jàppalee béykat yi ci financement yi. financement yi nan la ñuy jàppalee mooy. doonul ne dañuy wax ne la man bay laa eh, damay bay wala may sàmm nga jox ma xaalis ma ba seetaan. du noonu dañ lay jox xaalis topp la. du xool ba xam yaa ngi def li ñu la wax am di mm-hmm. loolu mooy yoon tey bu fekkee dañu wax ne am dañu la a jàppale yow xam nga tey boo waxee mbay bay wax sàmm mm-hmm. a mm-hmm. a ba xam xaalis boobu jënd ko wala déet xam lu wax mais bu fekkee dañoo wax ba pare lañ jox la xaalis bi nga def ah, yow xaalis bi loolu neex nga def bu fay jotee bu fay mu metti ah. léegi nag nañuy jàppale jàppale bay nañu jàpp ni ñu leen di jàppalee nañ leen di toppatoo toppatoo gi mooy nañ bu ñu leen a par nañ leen cadré xool la ñuy def jàppale bu bu jumti jotee amee ñu ne ci lii jubbanti leen lii waaye baykat yi xamuñu lenn suñu boo gisee rajo euh, euh, bi ñu war a organiser la ci yu bari xamuñu hmm. il faut que ñu leen koy xamal boo gisee ñu wax mbay mi ñu wax rajo bi ne rajo ut rajo pour rajo baykat musta am ci Sénégal man maa ko njëkk a def hmm. boo gisee ma def ko lii moo tax ma def pour jàppale leen pour gën leen a jege ñuy xool lan lañ am ak lañ lañ amul amul rajo bii ma lay wax ni ne nii état euh, fi ne nii fi tey bu ma defee rajo kan laa defal rajo béykat yi kan laa ko defal du état état oui ah Hmm. fii may waxee yow kenn amul kenn ku la mas koo mas a woo ne ma ah dégg naa nanga da ngay xool lool fii nii ñoom lii war na ñëw ay war naa fekk ah yow kat lii dégg naa def nga nangam ah, ñu ngi la encouragé ci li ngay def nangam am hmm. ndax waaw góor day tax nit ki gën a góorgóorlu doonu ne yow ki nit ki da nga ko war a woo pour saa boo ko war ko jox xaalis déedéet. ñu hmm. la a jàppale am ña nga ñangam lañ lay jàppale ndax ñu ngi ñu ngi sant ku mel ne directeur euh, DER bi. wax dëgg yàlla liggéeykat la moom yi seet nañ loolu liggéeykat la li muy li muy moom itam maa ngi gis yu bari maa ngi sifur yu bari ci moom liñ bëgg mooy nañu xool bay nañu wàcc ci baykat yi ñu ñu dimbale gën ñëw jàppale ci mbay bi mhm. ak ci sàmm ci organisme bi ñuy bëgg itam duñu bëgg ñoom li ñu bëgg mooy li ñu bëgg mooy nañu jàppale seen bopp buñ ñëw ci mairie bi ne la nangam buñ dem ci benn mairie naka nangam ndax mairie yi mairie yi su bari itam ñoo indi problème ci yu bari ndax mairie bi tey boo ñëwee wàcc ci mairie bi ne nangam mairie bi boobaa ay nitam lay wër nitam ñoo ñee nag tey ñi bokkul seen duñ am problème kon nag buñ ñu wàccatee ci dem jàppale baykat bi buñ dem ci baykat bi buñ dem ci mairie bi buñ dem ci mairie man maa ngi ñaan askan wi maa ngi ñaan état lu ñu defe tax fu mu koy defee fu mu wàcc rek def ko direct ci mairie bi mais xool ku mel ne préfet sous préfet ak gouverneur yi lay ñëwee ñuy wax leen xamale na leen soxla wuñ ñi wàcc ci mairie bi soxla wuñ mairie ñu jox affaire bi mairie bi nañ xool organisation ya fa ne ñu wàcc jox leen ko ñu organiser ko da mhm. man tey mairie bu mu fekkee tey man mairie laa nga jox ma ma nga jox ma ne ma bii ci eh, eh, dëkk bi la jëm damay xool ñi nga xam ne ñoo ma jàppale ma jox leen ko ñi may jàppale surtout mu ko am doole ko mu doole lii da nga wax seen ñi nga xam état lu bari lii dong la problème bi yëpp lii la ndax lu si ëpp bu ñëwee ci maire lañ koy jox ci maire yi la affaire affaire bi fii la maa ngi jégalu nag maire yi maire yi nag moom ko dégg dañ ma xam nga li ma wax dëgg la man maire laa andi nañ ma fu xaalis ne ma jox ko escalier ñoo ko moom damay seet sama waa ñi ma jàppale ma jox leen mu mel ni ci say wax danga ne maire lu ñu ko jox du ko séddale askan wi na mu waree waaye nag ñi ko doon jàppale ak ñi ko gën a jege rek la koy séddale xam nga xam nga maire fekkee maire laa ñu jox ma euh, état jox ma na ma dama la ko dimbalee saw askan damay maire sama damay xool ñi ma jege ma jox leen ko ndax ñoom ñoo may jàppale la léegi nag moo koy ak su préfet mm-hmm. ah wala yi ndaw yi ni ci biir ñu woo leen ñu fekkee mm-hmm. ah. su boobaa est-ce euh, problème dana am ndax ñooñu amuñu kenn am na mm-hmm. te ci def lu yoon eh, préfet dana la wax ne defoo yoon wala su préfet ne la yoon lii lañ bëgg lii lañ man lii mooy problème bi ci ma ma ne ma ne ma eh, ñi ay ndimbal yoo xam ne askan wi ko moom damay seet ay poson naa yi nañuy dimbale baykat yi ren yi jàppale leen lu mel nii ñoom bu ñu ñëwee nañu xool na mu demee ñu xool na mu gën a baax ñu def baykat yi soxla ñu dimbal fii may waxee yow muy ñax muy lu ma di doon baykat sàmm bi noonu li may tëgg daal mooy def ministre bi agriculture ñi nga xam ñoo ko woon nañ ko jàppale ak ministre bi fu mën di nekk nañ ko jàpp gis nga ministre bu fekkee ne yow ñëw da nga faa fekk da nga faa fekk ay techniciens fekk su ñëpp ministère bi nga ñëw fekk leen waa ministre yow rek lañ chance daanaka ak sa directeur cabinet boo ñëwee kon léegi li nga war def mooy ñi xam ne léegi ministre boobu ñooñu la liggéey ña fa jël ñoonu lañ liggéey nga continuer ak liggéey mais su boobaa itam da nga fexe buñ la bodduloo kenn xoolal a lan moo xew mm-hmm. kii ko wax nañ ko woon ak waan lan moo tax nga wax ji su boobaa wax ji bari bu fekk xoolaat toogaay wax yi gam liggéey askan fi nit liggéey lañ soxla dañ bàyyi coow ci liggéey état fi nit liñ liñ soxla ci état mooy ñu soxluñu wax waaw ñii gën ci rajo yi di wax ak ci télé yëpp ñun loolu loolu soxluñu liñ soxla liggéey ñu buñu état liggéey si eh, mooy nañ wàcc suuf waxuñu nañu liggéey Dakar dong xoolati léegi ni may waxee yow si am nañ si benn route boo xam ne euh, euh, matut yaakaar naa wutul wër sama trente kilomètres wala bu ko matee ci la yam muy ñibi ak ak ak bonje ko nattee léegi ba pël deux mille lañ ko nattoon ne dañ da ngay xool yu mel noonu na xool yu mel noonu ñu dimbali ñu si ak ah, loolu bi a ubbi euh, euh, dëkk yi nga xam ne tey mënuñoo béy mayum noor wutale ay forage yu bees xam tey xale yi dootu ndox mu neex nañu fexe ñu doon ndox mu neex ñu génne ani réseau bi ci forage mag ba fa nekk lëkkalee ko bu ko defee danañ mën bay mbayum noor mbayum noor nga waree tey sa war a nga fa mën a bay loo mën a toog sa añ te loolu Sénégal équipe la war a am mhm. ci loolu xëy bu ko amoon buñ ko amoon Sénégal gépp ñi ñëw si war ay projet yoo xam ne tey buñ ko amoon matukaay lañ amul fi bi fi ma waxee yow nii maa ngi woon benn projet boo xam ne mhm. damay ñëw ci maire bi jox la benn tracteur tracteur lay jox ne jox la sufoor ne lu ñu labourer lu autorité privé euh, yi di labourer deux cent yow cent la cent cent vingt cinq laa nga koy labourer tey koo soxla da ngay dem jël ñu defal la gasoil nga dem jël labourer fekk da ngay bay ñi nga bay maire yëpp laa laa bëgg projet boobu maa moom dafa naa ko ba pare fi ni projet boobu xaw ma kenn ku ma ci jàppale mhm. ngay xool yi ci benn question rek muy est boobu maanaam euh, jox nga koy kilifa yi non projet boobu joxaguñ euh, ko woon kilifa yi ndax mhm. gisoo koo ko ndax la ko mooy tey bu fekkoon tey dañ laa wax ne la mhm. xam nañ lay jàppale ci li ngay liggéey wala ilaa ñu la encourage ci li ngay liggéey nga mën a wax mm-hmm. xam nga mais yow man euh, Touba laa dëkk àll bi bu fi nekkee mbaa tax man li ma ñëw fi am ku a wax ne euh, ci euh, ci muy ministre muy directeur maa jàppale suñu xaadim lii ci mbay maa ko jàppale ne ko nekk maa ko si encouragé na si àpp ndax deux mille neuf ba ba muy ba muy ba muy métti la laa ci bi kon nag léegi boo jógee sa projet kan mhm. ko yëpp boo waxee ñu ne la sal nañ sa rakk lañ wax <laughs> da ndax ndax ba may politique sama rakk taxoon ah sama rakk du yori soxna ma yor soxna ah. mu yori tool ma yori tool mhm. ah bu ñu waxee ñu ne la yow yow kan wóor wax daal <laughs> <laughs> na doy na waar suñu xarit <laughs> mu ngoog mu ngoog daal mu ngoog mu ngoog jaajëf lu ko wax ñu leen sant bu baax di leen gërëm di sant mu jëf caat ak Baol Info ñu Baol Info ñëpp jërëjëf euh, sant bi ngeen gërëm bu baax a baax jërë ngeen jëf merci. ñu jaajëfal leen bu baax a baax yéen mbokk yi topp seen site bi di bawol media info point com ñu àndoon ak Serigne Khadim Seck Sadaga mu doon àddu euh, ci li jëm ci wàllum mbay mi ngir rek ñu indi ci ay solution gën a jëmmal lii di am mbay pour rek